waaw gars yi maa ngi leen di ziar di leen gis ngeen vidéo boobu noonu gaayen boobu noonu di wax ak di wax ak Macky di ko joxoon gaayen bi dañ kaa téye ndax ñu ne warul wax ak président di joxoñ di def nii ndax réalité la doon wax dafa ko ne ñun teguñu ay nit ñun ay alpulaar lañ côté Fuuta la fu ñuy wax jaataar la dëkk oui maa presque ay magam ñoo nekkandoo fi daara presque oui dafa ko doon wax ñoom jaataar la ñuy dund ak Fuuta ak moom Macky Sall nu mu leen doyee dalee dafa ko ne ñu respecté wuñu yow élection ba élection lañ lay gis Moussa Azeri nga ñu jàppee ak yeneen yeneen mais dafa pare rek barki yàlla cinq minutes ñu jëli ko léegi nee nañ dinañ ko tëj xaw ma cinq jours xaw ma ñu ne xaw ma warul wax ak président di yëkkati ay loxo di kii xam nga lii rek dafay wane ne rek ba léegi dëkk bi injustice moo fi am te di lii ñëpp war lii ñëpp war a yegg lii jaay doole bu mag a mag la li ñuy gis ci télé yi RTS yooyu du loolu mooy réalité bi réalité bi mooy gis nga majeur yi mu kallafi jeunes yi toppuñu ko ci dégg-dégg man Fuuta laa nekk xam nañ lépp ñun xam nañ lépp billaahi yàlla xam na ni ñii toppuñu ko ndax moo ngi liggéey wala moo ngi defar Sénégal mais euh, <laughs> vidéo yu négatif yi doole leen ko gis. positif rek la ñuy wane i rajo yi nii RTS yooyu ay TFM du ñu wane lu baax mais Sénégal jaay doole moo fi xoolal waa ji rek jaay doole bu ñu ko def injustice bu koy def tëj ko nii rek ñu ne dañ koy teg cinq jours ah Podor lañ ko tey moom jaatar la dëkk dëkk bu ñu wax jaatar Sénégal du dem.